Rewmi 24 TV. waaw yéen ko gis euh, noonu affrontement bu métti daal dina am ci ñooñu Amadou Ba bay ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy waa Pastef jamono yi gis ngeen leen noonu foofee ca parcelle xeex bu tàng jër tey ji ci dimanche 10 euh, mars 2024 bi mu mel ne campagne bi daal dina jor waaye waa Amadou Ba yi ñi ngi kar waa Pastef di leen def ay provocation yéen a gis nii kon mu mel ne yombul benn yoon xeex bu metti moom moo fa mujjee am tey ji ci dimanche ji ginnaaw rek ba waa abon bay carré leen di wax ne rek du jàll gis ngeen ko noonu il faut le dire y aura non mais ça c'est quoi mais ñi doon football sax terrain ba dañoo mujjee arrêté ñëw seetaan gars yi mais mosuñu ko gis équipe bi doon football dañoo mujjee arrêté mosu ñëw di